رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى خديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غيري ما يتدو مطار صار sous-préfet arrondissement jërëjëf ñu ngi eh, nuyu euh, sëñ Abdou Baaxe Dem euh, di ko jox wàccuwaayam di nuyu euh, chef de village bu Bourndu dañuy jaajëfal sëriñ bi bu baax ci liggéey bu am solo bu rafet bi xam tamit moom la def fii ci Daaru Miraaya ndax xam nañ ni fii ci daara ji 443 e, taalibe ñi ngi fii di sàkku xam-xam mu am ñoo xam tamit fii ci réew bi lañ dëkk ci ay sénégalais waaye am si ñoo xam tamit dañu e, bawoo ci sous région mën nañ cee tudd lu mel ni Gambie Nigéria gana ak yeneen yi dëkk ñooñu nag ñëpp ñu ngi fii ci daara Miraya euh, sëñ bi yore leen fi li nga xamante ni moo euh, jara taxaw seetlu mooy ñoo ñëpp fii lañ nekk euh, di fi gëstu xam-xam di fi jàng di fi amee xam-xam waaye amul kenn ci ñoom koo xam tamit di nga génn di yore pot ni da nga yelwaani booleen leen ko ci at yi ci gannaaw nguur gi am na dogal yu bare bare jël xam tamit jëloon na ko ngir xale yi ni doon taxawaaloo ci mbedd yi di mbuboo euh, jàng ci daara te lu ëpp ci ñoom euh, dañu koy mbubboo waaye duñu moom kon tey ji mën nañ wax ni sëriñ bi référence la ci yoon woo xam tamit euh, wane na ko te état bëggu ko lool tey nag euh, dañu ñëwoon fii def lu ñu tuddee CLD délocalisé euh, maanaam ñu génn suñu bureau yi ñëw ba amal fi ànd ak service technique yi loolu boo gisee ñu ko ñu def ko jige askan bi gën a jige population yi xam ne lim ñu fi tege mooy ñu fexe ba jaamu soxla askan rawatina nag koo xam tamit dafa euh, dafay def liggéey boo xam tamit daf ci wuutu état muy defar doomu aadama ba ëllëg mu mën a jariñ réewam kon mm, xew-xew boobu war a am ci 3 mai 2024 euh, ñu ñëw nag ànd ak service yi comme ni ma ko waxee pour waajal bis bi euh, secteur domaine d'activité yi bëri na mën nañ cee lim lu mel ni wàllu sécurité muy am lu am solo wàllu santé wàllu ndox mi wàllu yoon wi ak lépp li nga xam tamit day jur day day jëm ci ñoŋal bis bi moo xam ci euh, fexe ba ñu ba ñu euh, dëkk bi ñu mën koo pompe man ko setal xool jur yi nga xamante ni dañ leen fi war a lewetal bu bis baax kon yooyu yëpp euh, jot nañ cee waxtaan euh, fexe ba bis bi mën a am courant bi mën a doy ba délestage du am fexe it ba yoon yi mën a leer waaye yoon yi aussi jafe-jafe yi nga xam tamit am na ko yoon ñu mën koo xool mën koo defar ba nit ñi nga xam tamit euh, jógewuñu rek Kaolack jógewuñu rek ci biir réewu Sénégal mais dañuy jóge yenn dëkk yi fi tudd sànq muy Gambie Nigéria Ghana ak feneen ak feneen yépp bu ñuy ñëw ñu mën a ñëw si jàmm dellu ci jàmm kon loolu lañ doon waxtaane jox nañu nag kàddu euh, bépp chef service bu fi teew euh, ginnaaw bu président euh, comité d'organisation bi jooylee soxla yi nga xam tamit am nañ ko ci secteur bu nekk service bi fi nekk

dal bu bu mucc ayib euh, teeruñu ñu waxtaan ak ñoom weccante xalaat ba am nañu yaakaar ni bu ñu sa jógee ba ba bu euh, ñu si jógee ba pare suivi bi nga xam tamit war nañ koo am au niveau local ak service yi waaye suivi bi nga xam tamit euh, niveau département la war am ba niveau régional incha allahu taala daañ ci jokkook suñuy kilifa ba ñu mën koo matale ba ñu am ci lu ñu lu ñu soxla waaw ndax Euh, code général des collectivités territoriales dafa dafa wax lu jëm ci intercommunalité bu yagul sax am na décret yoo xam tamit génn nañ ci fànn boobu pour wane ni euh, dëkk yi nga xamante tamit euh, ñu koy wax collectivité territoriale ñaare dañuy dend léeg-léeg ñu am lu ñuy tuddee projet commun maanaam léeg-léeg mu am lu dox seen diggante loo xam tamit commune bu ne da ciy am wàll li olof di wax nag mbooloo mooy doole dafay baax euh, bu ñu jëlee wàllu mbalit mi nga xam tamit soo jógee fii ci Mbadakhoune di dem Medina Baye euh, bala ngaa àgg Medina Baye am na dépotoir bu mag bu fa nekk euh, muy boo xam te fa la ñuy sotti mbalit bi mbalit boobu nag lu ci ëpp ci ci commune Kaolack lay jóge moo tax mu baax commune Mbadakhoune ak commune Kaolack man cee Eh, taxaw seetlu waxtaane ko pour que ni ñu ñi nga xamante ni jeexintal bi nga xamante ni war na ko am ci ñaari commune yëpp mu mën ko am eh, jafe-jafe yi nga xamante tamit xëy na du ci ñàkk am na ci ñaari commune yi mën a am taxawaay bu mat sëkk ba jafe-jafe yooyu ñu mën ko saafara bokk na ci yoon bi nga xamante ni dafay jógee eh, Medina Baye dem ba Mbadakhoune continuer ba Xelkom yoon boobu naam am na Euh, projet yoo xam tamit am na ci waxtaane woon nañ ko euh, gouverneur jiite ko bokk na ci li nga xam tamit programme bi nga xam tamit état jël na ko pour war ko defar waaye bala ñuy àgg ci boobu nag day baax comme latérite la euh, jafe-jafe yi ci am ñaari communes yi mën a taxaw saafara ko ba population yi man di dem ak dikk te it comme événement bu mag bu am doole bu mel ni dafay baax aussi service yi nga xamante ni ñoo ci war yëngu lu mel ni UCG Ageroute jàppale ñu ci ak entreprise yi nga nekk ku mel ni CRBC yëpp ñu dugal si seen loxo ba yoon yi mën a mën a baax nit ñi mën di dem di ñëw rawatina le 3 mais bi nga xam tamit moom moo nar a accueillir euh, àdduna fii ci Daaru Miraaya waaw ma Kébé Kébé la di chargé de comme maire Mbadakhoune mais aussi représenté ko ci CLD bi nga xamante ni moom ci euh, branchement bi nga xamante ni aussi euh, dañoo war a contrôler le circuit électrique yaakaar naa loolu tamit jàmbat la fi eh, et que aussi euh, mairie bi ak service technique yi nga xamante ni ñooy yor wàll woowu euh, dinañ leen ko yeggee ba nga xamante ni euh, dinañ ci taxaw leeral mbedd yi de telle sorte que programme bi dinañ ko amal ci anam bu baax mais aussi ci wàllu nettoyage aussi wax nañ ci yaakaar naa mairie bi aussi dinañ ci amal seen taxawaay manam euh, ñu indi fi ay jumtuwaay yoo xamante ni dañ ciy basé wu pour que ñu mën amal euh, nettoyage ba nettoyer bërëb bi euh, mu gën a leer mais ku wax aussi programme wax li nga xamante ne infrastructure routière yaakaar naa mm, piste bi nga xamante ni moo medina Medina Baye ñëw dahun fi la pèlerin di jaar mais aussi ki nga xamante ni xaadimul euh, euh, umma di xalif euh, général de Medina Baye Cheikh Maay ak ki nga xamante ne mooy imaamul akbar Cheikh sëñ Cheikh Tidiane dina fi jaar donc day waral aussi ñu defaraat piste bi loolu nag interpellé nañ ci municipalité bi te li ñu ci mën en collaboration ak suñu kilifa dinañ ko def ba nga xamante ni Euh, liggéey bi dina muccu ayib and euh, ci ak wa UCG mais aussi Ageroute ak ñi nga xamanteni tay ñom ñoy yor walu woowu. waaw ci lolu aduna euh, ci sank moy ci walu nettoyage bi comme que am nañ fi ay kuréel yo xamanteni yalla deunk na leen comme lu démé ni FERA di Fonds d'entretien routier autonome ñom dañuy nettoyer ak désensabler la voirie communale mais aussi diñu ñu ci nettoyer yenn bërëb yi. yaakaar naa ñooñu aussi euh, mairie bi dina leen déployer mais aussi ak euh, ñi nga xamante ni waa UCG euh, bu ñu waxtaanee ak seen kilifa yi yéen a ngi dégg léegi ci salle bi may woo ma leen di woo ñu ne loolu sax dafa fekk mu bokk seen programme donc ñooñu tamit mairie bi interpellé na leen pour non seulement ñu defaraat piste bi mais aussi waa CRBC bi nga xamante ne aussi Euh, mooy China Road Build Corporation di euh, entreprise chinoise bi nga xamante ni moo chargé wu euh, defar autoroute Mbour Kaolack ñooñu aussi mu du ñu dugg suñu dëkk donc aussi dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise ñun à chaque fois aussi dañ leen di jàmbat ay mbir ñu ñu ciy jàppale yaakaar naa bu ñu leen waxee loolu aussi pour ñu jàppale ñu ci bis bi arrosé waat piste bi Euh, defar kàmb yi euh, nii de poule yi aussi ñu ñu toj ko ba nga xamante ni pèlerin yi dinañ jóge fi fee ñuy jógee ñëw si jàmm mais ñibbi si waat si jàmm. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di nuyu mboolem ñu ñu seetaan di nuyu préfet nuyu tamit commandant ak mboolem service yi fi nekk ak euh, suñ njaatige yu baax yi ñu nekk si borom dëkk Bundu waaye Ndour Ndour ba mbuleem ñoom ñoom ñu ngi leen di nuyu nuyu waa Fitaanu Sirkin di sant yàlla ci sa laaj boobu nga laaj alors wax dëgg yàlla réunion bi ku ci teew di nga gis Pastef waaye ak euh, bëgg-bëgg ak yéene gi nga xam ne <coughs> préfet am na ko ngir jotaay bi ba si ziyaara bi di 3 mai nekk bés boo xam ne bés bu réussir la euh, ndax lépp lum laaj ci ci ñu càmbar ko nga xam ne ñoom war nañ cee mën a dugal seen loxo rek def nañ ko ci wàllu sécurité commandant dégg nañ li mu wax nga xam ne moom moom wax dëgg yàlla bés bi dafa am daf ci am xaas ya di ci taxaw taxawaay boo xam ne daanaka bala ñoo balañ koo sant dara sax moom ñëw na def ko ak yeneen service yëpp moo tax sama xel dal na bu baax a baax a baax a baax ci lépp loo xam ne wax nañ ko fi doomi aadama nag yéene la am ak bëgg-bëgg yàlla rek moom mooy sottal yàlla yàlla sottal bi jaay nabi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi koy gërëm di gërëm tamit journaliste yi ci seen teewaay am na ñu bëri waxuñ ngeen ko dañ ko dañ xale yi ñoo leen téléphoné rek ne leen bés bi nanga ba dañoo am CLD tey rek ñoom ñoom ñu déplacé wu ñëw tudd leen seen tur yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen tawfiq ñaanal yàlla préfet ak équipe bi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp yàlla yokk leen ci zaahir ak ci baatin yaakaar bi réew mi am ci seen loxo ba teg ba ba dénk leen gox bii nii yàlla may leen fi ndam loo xam ne ndam lu rëy la suñ président bu bees bi tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko tawfiq may ko ndam ci liggéey bi ndax bu amee ndam sénégalais bu nekk moo am ndam te yàlla def ci réew mi jàmm def fi sutura def fi déggoo ak benn xol yëpp nekk benn ñu jëm ci nag ci développé suñu réew yàlla ñu yàlla defal loolu wasalaamaaleykum wa rahmatulah رسول إله العالمين تعالى تقديمك نادى يا رسول تعالى قديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غيري